d'accord d'accord euh, jaajëf euh, alors euh, les consommateurs tey jii yéen tamit est-ce que solution bi ministère bi joxe jëm ci di dindi taxi yi ngir dabu yenn prix yi ndax la dal na seen xel tey. dalut xel parce que boo gisee tey jii mburu mu yokk état bi ñu ko ne dina jël impôt sur les bénéfices au moins sax mu décalé ko daf na mënu ko donc bu fekkee ne lii dafa continuer dana dem ba munul te état bu mënul il faut que quelqu'un paye et c'est le consommateur qui paye xam nga le problème que nous avons c'est que war nañ mën a jàngat lu bari ci pandémie en développant la production locale comme ni koy saa waxee tey ji ceeb bi ay milliards milliards lañ ci dugal bañ ko commencé ba léegi

wa président de la république war na ko jëmal parce que dafa am solo président de la république approprié wu ko ñun itam consommateur yi ñu approprié ko ba nga xam ne la ñuy jigee bitim réew parce que coono bi ñu am yépp c'est parce que lépp lu ñuy lekk presque bitim réew lay jóge donc war nañ li fi nekk gum keroog bi may xol ci ben média ma nekkoon ci plateau bi ñu won ma représentant régional ISRA di woné blé bu ñuy bay ci vallée bi dama né mañi dañ wara encourager lolu dugg ci all bi ñaan suuf te buñu ko deful benen doomu bitim réew

ñu nangu parce que lepp lo gis rek changement de paradigme nak dafa xawa war ngeen itam ñaaxat naturellement. gars ci c'est pourquoi consommer local c'est pourquoi. Mhm. moi du consommateur de l'État dañ fa taxaw taxaway bu bari pour sensibiliser vraiment les populations. Yéno waa ASCOSEN wala da ngeen lëkkaloo ak. SOS euh, euh, consommateur wala. Euh, ñun waa ASCOSEN je parle parce que ASCOSEN moo fi indi ASCOSEN laa mën a wax ne.